anna man zaala maanicu lwujubi fi xaqihi fa innahu yalzimuhu alqada duna al imsaak wallahu inda wal ilmu inda allahi azza wa jal mu ne képp koo xam ne lala tere woon woor mana lala gàmp lala empêché woon loolu deñ na kon lay war mooy alwujubu lii war fii xaqihi ci aqi waa jooju fa innahu yalzimuhu alqada kon day war ci moom mu fay duunal imsaak loolu mooy di ziyaada bi desoon démb tey dars bu bees bi mooy qaala al musannifu rahimahullah mu ne waman aftara li kibarin aw maradin laa yurja bar'uhu at'ama li kulli yawmin miskinan mu ne qaala saalix la mu wax ci darsu bi mooy képp koo xam ne dangaa dog la la dogloo mooy feebar mag mag moo la dogloo li kibarin dangaa màgget ba munoo woor aw maradin walla feebar feebar boo xam ne kenn yaakaarul ci yow nga wér mu ne dina leexle ato ama lan mooy lexle di nga leexal ay miskin lool mooy la ngoon gu nekk bu ñu wooree ba dog nga génne mille francs alal aqal nga jox ko benn miskin ne na kullu yawmin nag ba koor gi di jeex mu ne qaala saarix ki doon firi darsi yi sëriñ bi doon jàngale mu ne waffaqahu llah yal na ko yàlla dëppale nee na ne haasihi masalatun lii de beneen masala la beneen jàng la tataallaqu bi wujubi siyaami boo xam ne dana aju ci waral woor weeru koor waaw boobu ban masala la boo xam ne dana aju ci waral weeru koor mu ne maa yarjiu ila kabirin ilal kabiri li nga xam ne dina delluwaat ci ku mag màgget mu ne wal maqsuudu la ñu jublu bil kabiri haahuna li ñu jublu ci jàng tey ci leeral ci mag mu ne fii ci dars bi liñ ci jublu ci leeral kan mooy mag mu ne alharima min arrijaali mooy ku màgget hmm, ci góor ñi awil ajuz walla ku màgget ci jigéen ñi ñaar ñooñu rek la min aw kama yaquluuna alhimma walhimmatu noonu alhimmu mooy ku góor ki alhimmatu mooy ku jigéen ki yaani alharimu wal ajuz màgget bu góor ak màgget bu jigéen ñaar ñooñu allazina ñi nga xam ne balaxu yegg nañ minal kibiri ci mag maa yajaluhum loo xam ne dana leen teg ajizina ñuy tële ani siyaami ci koor léeg-léeg dina màgget yegg foo xam ne du mun a wor ci mag dafa màgget rek du dafa feebar dara dalu ko waaye màgget gee ko yóbbu ba mun tawoor wax dëgg yàlla xanaka léegi moom ah, jóg sax du ko mën dañ koy jàpp yëkkati ko ndax amatul doole yaram bi jeex na daanaka làmmiñ bi rek a fi des làmmiñ bi waaye boo ko xoolee dangay xam ne kii màgget gi jàpp na ko ba yóbbu na ko tële na mënatu la woor laa yaqdiruuna alayhi mënatuñ ko ñoom ñaar ñëpp du kenn ci ñoom moo mën a woor mu ne awala la wa hiya assuratu saaniya mu nekk ñaareel xaalatul marad maanaam biñ doon wax sànq ñooñu lan moo tax mënuñu woor màgget beneen ba ca tegu mooy xaalatul marad ah màggetuñ de waaye dañoo feebar ah laa yurja bar uhu yaakaaratuñu sax feebar bi dinañ ci wér màggetul de góor gi màggetul ku jigéen ki màggetul waaye li ko daal ba munta woor mooy feebar boo xam ne mënta wér waaye suqu ma ahu siyaam dana diis dana metti ci moom mu woor aw yusaabu soimu bi darar walla bu wooree day loru kii daal niñ ko gisee feebaram gi morom ah, wóoru de kon ñaar a ngi noonu ñaari masala bu njëkk bi lan la màgget ñaareel bi mooy feebar boo xam ne waa ndaw du wér wala ndaw si du wér wala bu wooree da ciy jële lor mu ne isan haulaai yataallaqu bihim hukmu ñii tamit am nañ beneen àtte ñoom it ñële am nañ àtte ñii am nañ àtte fahim na suratul masala comprendre nañ masala bi kabirun ku mag la koo xam ne balaxa yegg na ilaa darajati lati laa yumkinuhu fiha dafa màgget màgget goo xam ne fa ko màgget gi eggal mooy àttanatul koor wala aw ya suquma xaaluhu siyaam wala dana metti ci mbiram bu wooree ba ngoon assuratu saaniya maradun la yurja baruhu waa léegi ñeenee ñu wax lan mooy seen àtte dañoo màgget ba mënuñu dañoo feebar mënuñu walla walla suñu wooree dañuy loru ñii luy seen àtte hmm? dañuy lele moom lañ jàng fii ci kaw dañuy lele mënuñu mu ne beneen bi as suratu saaniya salis saaniya maradun laa yurja maradun laa yurja bar uhu ku feebar koo xam ne kenn yaakaaru dina wér kii moom def feebar moom màggetut moo ngi nii màggatut xale bu góor la wala xale bu jigéen la wala mag la boo xamante ne jeexalagul moo ngi kàttanam moo ngi lépp waaye dafa feebar feebar goo xam ne kii xam nañ ne moos dootul wérati am na feebar yoo xam ne du wér boo ko amee yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na la yàlla wéral waaye dee rek comme feebar ñoo cancer corona day wér nga gis ñu bëri wér ñibbi seen kër nga naan corona ah comme cancer nañ ci yàlla musal léeg-léeg du wér comme diabète yenn saa dina wér yenn saa du wér comme waaw comme dérapano dérapano yooyu moom du wér sida ah? AVC loolu du wér ah yu demee noonu feebar la yoo xam ne yàlla na ci yàlla musal ab jaamam su balaa mu koy dal ndax am na ci yoo xamante ne bu la dalee moom dee ngay xaar ak di tane ndax mu ngi tane waaw yu mel noon nag bu dalee nit hmm, wa chart mu ne laa sàkk annahu yashaqu maahu siyaam ku mel ni yasuqu dana metti maahu ci moom asiyaamu koor ku mel nii dana metti ci moom mu woor trop wa min baabil awla aw yadurruhu siyaam wala sax li gën a garaaw mooy kii buy woor rek koor gi di ko lor kii tamit atteem mooy du woor mu ne xiinama naqulu maradun la yurja baruhu jamono ji ñuy jàng dina kii dafa feebar du wér mu ne haza yadulluna ala anna hunaka maradun yurja baruhu kon ci côté suñ ne kii dafa feebar du wér ci côté am na koo xam ne su feebaree day wér am na koo xam ne su feebaree day wér mu ne wa kooku tamit am na atte kii defa feebar du wér am na kii dafa feebar day wér am na atte ñaar lañ ñoo xam ne seeni mbir bokkut al marid allazi yurja bar'uhu lahu hukmun axar kii nga xam ne dafa feebar day wér am na beneen ate li anna hadha al maridu al ahwalu allati bihi kii feebar nga xam ne dina wér kooku la aju ci moom ci lu ñu war a jàng ci ay atte ñett la hmm? almarid allazi yurja baruhu mu ne feebar ki nga xam ne dafa feebar te yaakaar nañ dina wér mu ne wal yow ma tey alhamdulilahi noo ngi sant yàlla tey fii àddina bi toll noo ngi sant yàlla bu baax a baax lan la ñuy sant yàlla mu ne aksarul amraadi maa ma fataha allahu aza wa jalla bihi ala nnaas wa tawassuu fi tala fi ilmi tibbi aksarul amraadi al aana mimma yuraf laha ilaajun mu ne tey fi àddina bi toll ci wàllu xam-xam ci avancement ci technologie feebar yu baree baree bari ci kàttanu borom bi tabaraka wa ak ndogalam yàlla def na tey borom xam-xam yi génnee nañ ko garab gis nga bi ci mujj ni muy corona bi borom xam-xam yaa ngi ciy génne garab loolu luñ ciy jàngat mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla feebar bu mu wàccee indil na ko indil na ko garab gu koy faj yàlla musta wàcce feebar lu dul indil na ko garab benn feebar dong la indil ko garab mooy dee illal mawt boobu moo amul garab ah, faju du la dee mu ne alhamdulillah euh, tey feebar yu bari sunu borom subhanahu wa taala dimbali na ci nit ñi ci wàllu sante indil nañ ko garab danañ yaakaar ne ku mu dal wa yurja bar uha incha allah ku mu dal buñ la joxee garab yooyu rek yàlla tabaraka wa taala dina la saafara walam yakum al amru kazalika fi saabiq xam ngeen ne démbul mayul melul noonu am na feebar yoo xamante ne su la dalee dangay dee démb ndax amuñu luñ la faje nit ñi xamuñu woon dara ci xam-xam yi ay garab dañ naan dëbb ay reen ak ay ay ay ay ay ay xamuñu woon ay opéré wala wala ca aju ak yu demee noonu tey nag alhamdulillah yàlla avancé na doomu aadama yi ba nga xam ne fi leen yàlla tëral la ci xam-xam avancé nañ trop mais démb loolu amul woon lakin laa yazaalu hunaaka amraadul atibaau yaqifuuna indaha ajizin waaye ba tey jii nag ba tey jii fii àdduna bi toll ci avancement am na feebar yoo xam ne ba tey amuluñ ko garab nag moom ñoo ngi ne kocc kottaaral tële munuñ ci dara comme genre cancer lañ doon wax sànq ku mu dal yal na la yàlla musal ak yeneen ak yeneen yoo xam ne borom xam kii euh, borom xam-xam yi jàngale ci wàllu wirgu yaram ba léegi ñu ngi ciy tëre mënuñ ci dara yal na ci yàlla musal doomu aadama ku mu dal rek dees na la ñaanal yàlla nee ñoom ci seen bopp wa yulinuuna ajzahum hmm? ñoom ñooy dig ñoom ñoo wone seen tële ci feebar yooyu munuñ ci dara ka baadil awraami iza wasalat marhala mutaaxira yu mel ne yenn cancer yi wala yenn feebar yu dangereux yi bu yegsee ci yenn état yi dañuy jox waa ji rendez-vous rek naan la demal yenn saa yi sax ñu jox la rendez-vous boo xam ne ñoom ñoo gën a tey ne rendez-vous doo ci yegg da ngay dee waaw demal ba weer bi dee nga ñëw fekk xam nañ ne fii fukki fan ak juróom da dee ñoom xam nañ ko ndax xam nañ ne lii fi mu toll nii kenn mënatu ci dara léeg-léeg noonu lañ lay def dañ lay jox rendez-vous bu sori balaa ngay ñëwaat dee. mu ne aafaan allahu wa iyaakum yal nañ ci yàlla musal musal leen waaw musal musal leen mu ne wama saakala zalik ak yeneen yu mel nii ci ay feebar aw baadu xaalaatil fasal wala yenn eh, yenn jamono xaalaat ay melokaan yoo xamante ne eh, ad daaf alfasal ad daaf mooy lot tële dara nga mënul waa ji dafa tële dara la mënul yaram bee dee daanaka yaram bi dafa lax wal kabad wala feebaru res ah foie bi la affaire bi attaqué awil kulli wala dafa am ay feebar boo xam ne daanaka za comme zaaru cancer la rek yooyu yëpp wa nahwi zalik ak yu mel nii su eggee ci nit haadihi fi l gaalib fi kasirin min al axwaali yasabu aw laa yurja baruha allahu akbar su doomu aadama yeggee fii li ëpp fil xaalib li ëpp fi kasirin min al ci ay jamono bu mel nii ci temps ku mel nii dana métti yas abu dana kenn du yaakaar ci moom wir waaw mu ngi tane rek lañuy wax mu ngi tane ah nu def mu ngi tane kañ nga ko gëj a gis ah kay démb demoon naa fa waaw ko gisee nag ah léeg nga dégg ñu ne alaa moo to Allah wala moo ɓuritu allah soo gisee nit seeti ku feebar delli ñu ne ko nu mu def ah moom day amatuñ ci moom yaakaar wala moom day kenn gënu koo jege yàlla malaat boobu moom bu yeboo ñu ñaanal ko mooy feebar yi nag yàlla nañ ci yàlla musal mu ne almaqsuudu ann haadihi alxaalaat mu ne la ñu jublu ci mbir yi wa hunaaka fi ahwaalun yurja baruha kee moom dañu ne du wér kooku moom du woor abadan waaye day lele kii nag yaakaar nañ ne dana wér naqulu assiyaamu bi nisbati lil maridi allazi yurja bar'uhu yataallaqu bihi ahkamun bi xasbi al axwaali li an li anna marid mu ne ku feebar koo xam ne dina wér yaakaar nañ ci moom wér kooku dana aju ci moom yataallaqu bihi ahkaam dana aju ci moom ay atte xasbal axwaal kemu temps bi lu mu laaj ci moom moom de dina wér kañ la xamaguñ ko de moom de nangam moom de nangam ci temps yooyu ñetti temps la li annal haazal marid ah nee na kooku am na ñetti mbir salaasu ñetti mbir moo àtte ci moom incha allah bismillahi tabaraka wa ñetti yooyu euh, buñ yàlla mayaatee wér ak tal ak fekke ñu jëlaat ko mu nekk ab dars ñu ñaan suñu borom jalla jalaaluhu azza kamaalu yal na yàlla musal ci yenn feebar yi yal na yàlla taxawuñu ñi feebar yal na yàlla wéral leen delloo leen seen sago ñi nga xam ne du ñu wér yàlla yal yàlla may leen sago ak muñ yal yàlla def ko mu nekk sippiku bàkkaar ëllëg yow mal xiyaam bu ñu dajeeg moom bépp coono bu ñu feebaroon ci àdduna yàlla teg leen ko ci ay métit ak ay coono yal na leen ko yàlla teggil mbugalum bàmmeel ak mbugalum safara dugal leen aljanna asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.